jingeer bi bala muy tëdd ak lemon bi dama koy naan suba tel fajar gi dama koy naan ba tek Suma agné ba pare amon na tamit problème indigestion suma lekkan pour ma digérer damay damay damay ragal sax lek lu upp mais à cause de jingeer ak lemon damay lek lu ma neex suma ma naan kaas digérer normalement waaw léegi mu dem ci bay saxal samay we te musuma am we fàttalikuwuma fuma ame amee we billaahi wallaahi ma am wee sama weewu loxo yi di génn sama weewu tànk yi di génn sama kawar di génn mais bu leen wax ni daf maa jig mais mi ngi google nee naa la ñi nga xam ni waruñu ko laal muy les femmes enceintes ak ku nga xam ne day jël presque euh, maanaam garabu docteur yu foor yoo xam ne traitement la nekk traitement kooku parce que garab yooyu peut-être am nañu acide ak acide bi nekk ci jingeer bi mënul composer mënuñoo ànd mais lii ma wax nii ku ko weddi nga dem Google nga tàppe Gengère ak Lemon en anglais mu jox la ko ci en anglais nga translate ko en français nga liir say page soo paree nga defaraat ojo wax ni lii ma wax nii am na wala du amul ba pare man ci sama bopp man man en personne man daf maa faj te maa ngi ci kawam te nee nañu soo koy naan effectivement hôpital doo ci dem hôpital doo fa dem mu ni sa bopp man sama bopp sa suy metti su ma ko naanee benn kaas suma ma tëddee relax mu sedd ba pare day dindi naax naax maanaam ñooñu di fàtte feebaru mag yooyu nga xam ne da ngay toog ba yàgg ngay naax da koy dindi day leeral bët donc li muy faj nag ci biir sa intérieur ba pare rafetal sa po ba pare jox la énergie waaw nee nañu <laughs> dina faj plus de deux cent affaires kii yaramu doomu aadama kon nag man tooguma ay nit dama expliquer li wala la man dama ko li ci gënon a graw nak tension artérielle parce que tension artérielle ak ak euh, diabète en général ñoy andando di ñew day dindi tamit cholestérol <clears throat> ak léegi benn poids bi rek lay pesé ma poids té fokk cholestérol build tension artérielle moy indi tension artérielle ak diabète ñoo bokk nday ak bay benn bi du ñew bi lëndëmal say bët parce que diabète ak tension bu la duggee day li mu njëkk def yàq sa bët kon nag gars yi bu fekkente ne lii may wax nii bëgg ngeen encore confirmation dem leen ci seen internet ngeen tàppe lii ma leen wax jingeer ak lemon ngeen tàppe ko Google mu génneel leen résultat yëpp yëpp yëpp yëpp ay page la na ngeen liir ko ba pare ngeen dellu siwaat fii ñu gën cee waxtaan parce que santé doomu aadama loo ko jëndee jar na ko te bëgguma ci werante lu ëpp bëgguma polémiquer donc ma yebal leen fi ngeen war a dem pour xool li muy faj li muy bañ ak li mu bëgg